ñoo moome vent fi ñu toll nii. <laughs> sañ ngeen def lu leen saf. sañ nañoo def lu ñu saf dëgg par la force. ñun nii kay moom mhm. ñoo ñoo ñoo xewle maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp. di ci jiital amaat sunu sunu mag ju baax. ah euh, di wax ne tey fi mu nekk nii moom. Mhm. dara du sedd de. déedéet déedéet. acca tey nag comme ni ko ñëpp xamee gars yi euh, euh, wax ji benn la. moom moy musique bi mom fim mu ni nii ni yi nee metti mhm. féppay metti ci musique bi euh, euh, donc fi ma bëgg ñu tambalé suñu waxtaan tay mom moy les problématiques de la musique ndax euh, am na kat bu mag bo xamantene mom avis ba mu ta joxé gis-gisam ci ni situation musique bi demee néna na yi lañ tëjul bunt yi dañoo ŋàlli bunt yëpp ba fu neex way jaar ku war way way ku warul way way loolu mo dem ba ray musique bi alors euh, père amad Samb bi nga xamante mom mi ngi fi won depuis euh, jamono yi nga xamante euh, musique mi ngi dox <coughs> ah nit ñi diko diko consommer à sa juste valeur ba tay ci jamono bi nga xamante ne musique bi tàmbali na di suux ci moom la ñuy père amad Samb mom mu wax ñu d'après gis-gisam lan moy li commencé nasaxal musique bi fim mu euh waaw dajé kul wax nga wax bu am solo hmm.

très bien dit. xam nga ma wax. Mhm. dañ doon jël dañ doon répété. Mhm. Euh, cinq jours trois heures ba huit heures mhm. nga. Euh, ba may njëkk a wéy waajur bi. waajur daa njëkk a mu sonn ci doom rawatina rajo Babacar. mais loolu nga gis noonu ne euh, loolu avant avant ma génnee sa balaa ngay génne sax morceau pour jëm koy yóbbu sax si studio pour kii ko. da nga maanaam da nga da nga toog lu mat di répété lu mat ay 4 mois wala euh, ni sur la euh, lamine sur la xam ne la kañ dem studio pour nga mën a génne lii. Mhm. maanaam bu njëkk daal ñun doon takk ñun dañ doon liggéey mi di ko liggéey. ba mu ñor ba mu ñor soo ko mën a génne. mais laa gis ñàngat boobu laa am. Mhm. Euh, waxuma nag ñi xale yi li ñuy def baaxul waxuma ko de. Mhm. waaw ndax seen ñun suñu jamono ak yéen ñun doon liggéey ñun ak ñu ngeen di liggéey peut-être xëy du benn du benn ku nekk ngay euh, loo looy def euh, euh, sa sa temps ba mm-hmm. mais ñun daal suñ suñ suñ moment yi ñu doon ñu nekkee dem jamono di mm-hmm. joué mm-hmm. moment yooyu nekk nu doon liggéeyee daal ak lu ma gis xale yi liggéey nii léegi ah, nekku nekkul benn lo mm. lo lo loolu am na solo amaat samb def na ci njàngat bu am solo ndax ku ne xam na ni euh, temps bu bari biñ ñu daan jël di ko jagleel répétition yi xale yi léegi defatuñ ko man mhm. loolu mën naa bokk ci raison yi tax xëj na musique bi tàmbali di euh, nasax ci euh, ñenn ñi mhm. alors Magay Seck di ndaanaan boo xamante ne moom yamul rek ci di waykat waaye mhm. tey album yu bari yu ngeen di dégg ci Sénégal moo ko tëgg ah loolu moom kenn waxatu ko alors Magay dégg nga li Père Amath Samb wax léegi mooy ñoom dañ daan jël seen temps yëpp di ko répété donc dañ daan togg ba mu ñor ñu doog a yàq léegi nag loolu la gën a ñu gisatul est-ce que jàpp nga ni loolu moom mooy di commencé naxasal musique bi raison bi. musique bee tooy. dafa tooy. laaj xasum looro ak xorom sàpp dañ ko war a faj de xam nga dafay fenc ba si li nga xamee ne ni bii ne moom la ñuy liggéey. parce que boo seetloo même studio yi ñuy nekk. Hmm. dootuñu répété. wallaay parce que morceau bu njëkkoon da nga daan dem tëju répété ko ba mu mokk. Hmm. ñëw studio tari ko boo demee soirée mën cee dellu. Hmm. mais léegi. studio yi da ngay ñëw rek man des fois damay ñëw fekk morceau yoo xam ne borom way na ba dem. Mhm. du ma ko sax xam da ngay ñëw rek. Mhm. improviser say mbir. Mhm. defar. léegi nag problème bi mooy après nag problème de live. dafay dafay causé wu. moo tax des fois album yi boo boo ko dégloo. dem seetaan leen live ñenn ñi. da nga naan du est-ce que ñoom ñoo way album bi loolu yëpp manque de répétition la. ba pare tamit gëstootuñu. gëstootuñu. wayetuñ tem lu bari. Euh, te musique nag boo koy def. Mhm. benn boo dee woykat faaw nga xam solfège faaw nga dem école des arts boo fa mënta dem nga fexe ba jàng ay accord mhm. jàng guitare. Mhm. xam au moins am ay notion ci li ngay def. parce que c'est très important mais amatuñ jot boobu léegi. xam nga dañu topp buzz bi. de trop da ngay def benn affaire mu cartonné àdduna bi yëpp fil ko rek. yow c'est fini bàyyi nga répété bàyyi nga def sañ sa melestiku

<laughs> da ngay jël tels sont les propos de Magaye Sek donc ñi ngi eh, fatali euh, auditeur yi nga xamante rek ñi ngi ñi déglu euh, sur la 99.4 mën nañu dem sétane ci page Facebook bi euh, nous sommes en direct itam ci 3w point sn Mbaye Babacar yow itam wax deug neex yalla li ngay don don xalé yag nga ci musique ndax man je pense que lu upp fukki at ak lu tek ma ngi lay xam yag ci yëngu mmh. alors Père Amad Samb fa mu dikk fofu la magay guen alors yow en tant que jeune artiste lan moy ce point de vue par rapport ak ñom li wax. waaw ñom li wax dama koy rafetlu. Mm. parce que donc ñom ñoo ñu njëkk ci musique bi. Mm. Père amat ku ne xam na ni boo dee way rek. Mm. ku déglu ci moom baa ngay déglu ay wayam. doo way ay caaxaan. magay. per moom percussionniste bu mag la. ñëpp xam nen ko boo nee magay dana ah. kooku xam nen ko man sama morceau boobu magay moo ko je pense que kon ñun jeunes talents yi. Mhm. amul lu ñu yàkkamti daal. Mhm. bu ñu waree jénnee dara ñu toog xool ku ci mel ni Amath Amath mi mën dama seede yàlla moo ko fi indi mhm. bu ma waree jénnee dara dama ko koy jox mu déglu. wala ma ñëw këram. way mu ne ma noo fii ngay woyee. di ma jox ay code ma koy déglu. donc bu ma demee def loolu dama siy gis njëriñ. xam nga mais yàkkamti sa àdduna doo répété. xam nga. xalaat benn affaire yeewu yor sa xaalis dem studio fay ñu aar defal la benn morso nga yàq nga clip noonu xam nga nit ñi coow la. Mm. nga dem defaat beneen kii léegi carrière bu sori doo ko am. toj nga fii rek ngay am carrière bu sori doo ko am. Mm. artiste je pense que yow boo dee artiste nga da nga war di gëstu di liggéey di xool lan nga war a génnee. Mm-hmm. xam nga di xool paroles yi. Mm-hmm. musique bi. di xol yenn studio nga dem di enregistrer parce que tamit nit ñi ñepp yewu legi ñepp xam musique même xalé yi ndaw yi dañoo xam musique donc yaakaar na ni lolu lolu moy sunu waref ñun ñun ñun jeune talent yi du ma ne jeune talent sax parce que jeune talent amul jeune talent legi amatul donc nga nga mature don mag di def lo xamanteni ni nit ñi dañ ko mëna déglu parce que legi ñeppay déglu musique kilifa yi xam nga <coughs> sa yaay Mhm. donc musique bi doon nek lu lu lu lu am respect. lu am mhm. discipline. Mhm. donc lolu mo am solo pour man. en tout cas euh, bi fi mag ni di nek wax deug neex yalla musique doxoon na. lolu mom on a disconvé même pas parce que père amad Samb dina xam bu baax limay wax. Euh, mom daf ñuy doy seede ci lolu waaye euh, bi musique bi manam buntu yu ko ba kenn ku nek saña a dugg. je pense que ci la musique bi commencé am yenn jafé jafé yi Papichou yow itam nga bok ci nouvelle génération bu musique sénégalaise bi. tambali itam di bokk

ndax defe naa ne ceebu jën sax boo koy lekk faa mu ñor xomb xomb faa mu am ay yëfit donc dañuy damay damay digal rek sama mboq artistes yi jeune talent yi ñuy gëstu. Mm. bañ a njëkkante bañ a yàqamti dara it. ndax mm. ka borom karaguñu ñàkkul dara. Mm. na ñuy gëstu di dem ci sunu mag yi nga xamante ne defe naa ne ki la nekk ki la njëkk ci néeg bu lëndëm. moo la mën a wax fi làmp bi ne. Euh, euh, donc ñun ñëpp dañu war a ressourcé wu ci sunu mag ñi.

d'abord. Hmm. Ah, dañuy am amour bi. passion bi passion bi. Hmm. waaw. Hmm. xam nga soo def dara bëgg ko. même soo demee sax soo si kañuwul dara yow yow moom ngay. moom ngay def moom ngay def moom ngay def moom ngay def par amour. même soo si kañuwul sax dañ ko def pour amour. Ah, mais daal. fu mu toll vraiment musique bi fu mu nii vraiment. mais yaa ngi ciy gis sa bopp fi mu toll nii. waaw sant yàlla bu baax. Hmm, musique bi mi ngi lay dundal. waaw ñu ngi si sant bu baax xam nga sant. Hmm. sant euh, sant ñu ngi koy <laughs> ñu bu baax daal. ah <laughs> espérons bien parce que man li ma jaaxal mooy. Euh, dafa am loo xamante ne dafa ub sama bopp rap te. Hmm. noonu la ubbee bopp mbooleem koo xamante musicien nga ak mélomane nga. Uh-huh. parce que musique bi tey la gën a bari ay waykat te musique bi doxatul. léegi li ci dugal nit ñi man laa comprendre leen ci bàyyi ba léegi te quoi lan la. waaw mais comme comme li li père wax léegi rek. bëgg-bëgg ak ambition dafa am solo. waaye bëgg-bëgg bu àndul ak euh, saako bu amul dara du taxaw de. waaw non am na yu am dara. dafa am yu am dara. Ah. am yu digg doom am yu amul dara. <laughs> ah xam nga nag fi mu ne nii moom. Hmm. man damaa jommi bi doxut de. non loolu kay mooy géej gi am na ndox. man de cinquante yu ma tëgg quarante yi dama koy may. <laughs> Garanti yi dama koy may waykat bi ne ko bul ma fay ndax musique bu metti eh. metti na fayuñu hmm. droit d'auteur yi compliqué na hmm. man mosuma fay ko BSDA xanaa amoo carte BSDA am carte ba album dem ba BSDA ñu ne ma am nga fa ñaata je pense trois je sais pas ma ne leen ma ngay seet ci la passe aller retour léegi nag mbir mi dañ koo war a seet waaw ko xam nga xam nga euh, ñu ci bari li leen ciy dugal hmm. Euh, musique dafa nekk loo xam ne mbiru mbiru jinne la. Hmm. gars yi buñ ci duggee ak euh, affaire affaire star bi. Hmm. ku ci nekk na ci ñëwee rek xaalis bi. Hmm. genre affaire yooyu. mais dañ koy séen nag. mais ma ngay star bu amul dara métti na de. non man ngay laaj. Ah. man ngay laaj sama sama buntu kër fi na ña nga rang de. bu mu ne nii. Ah. damaa am waa ji tudd Njaay Teraanga. su may ñëw fa laay jaar ne ko kër ga ña nga rang de ordonnance yaa nga tege. mooy sama banquier. parce que nag ñun loolu moo ñuy xaw a sax dimbali. mën nit ñu baax ñi nga xamante ne yàlla daf ñuy boole ak ñoom relation yi. ñoo ñuy dimbali waaye musique bi metti na yéeme na. waaw metti na dëgg lu neex de magay lu leer nga wax de. yéeme na torop. waaw yéeme na di jëkkul daal boo bëggee dégg-dëgg. teg nañ ko ci loxo yi sunu borom. <laughs> doy na torop.

ok alors ñu euh, ñëw ak yéen laataa rek ñuy euh, euh, avancé ci yëf yi ci single yi nga xamante rek génn na parce que yéen ñeent ñi toog ñëpp ku ci nekk da nga génnee single bu bees tàq. Mhm. ci jamono fête de la musique bi père amad Samb mom ngeen doon dégg sank ci sam sa ngor père nak mom gëjoon nañ ko dégg ci single yàgg na mom mhm. mom moom daanaka bi mu dellu si waatee ndakaaru ñu ko doon dégg ci euh Pape Diouf mhm. ah génération consciente mhm. waaye euh, gis nañ ñi nga génnee single jamono yi c'est-à-dire ndax da nga relancer waat ci sa carrière solo bi nga doon def ou bien yaa ngi ci biir groupe bi ba légui rek da ngay génnee pour gaay yi xam ne fi <laughs> non actuellement ma ngi sama carrière solo yaa ngi sa carrière solo ci la ne waaw hmm. motax ma génnee sam sangor bi hmm. aha ma ngi sama carrière solo ak fu ñu léegi Amath Samb ak orchestre am ñoom évoluer ensemble. waaw fu mu ne Amath ak le Ndokuman Esprit. Ndokuman Esprit. waaw ah, ok mhm. Ndokuman Esprit. Ndokuman Esprit laa tuddee sama groupe bi. Hmm. waaw ba lay génne single bi tuddee ko Sàmm sa Ngor. lu tax Sàmm sa Ngor. waaw parce que euh, dajeekul. Hmm. waaw pour Ah, a yee doomu aadama yi rek ñu gën a jàpp ñu ñu ñu gën a téye relation yi. parce que hmm. ni ku nekk da nga war a sàmm sa ngor. waaw ku ne. rek da nga war a sàmm sa ngor loolu mooy li ma doon wax rek ne la léegi fi ñu toll nii ah, dañ war di wéy lu nga xam ne day yee nit ñi dana loolu dana mu dana dana tax nit ñi. Hmm. Ah, gën a xam ak suñu mag su mag yi njëkk ña. Hmm. soo xoolee euh, nu ñu doon dundee. xam nga maa soo déggee Mor Sibi maa ngi naan maa ngi naan àndandoo yomb na àndandoo yomb na waaye xarit bu baax a jafe. Mhm. xam nga yaa ngi koy wax. Mhm. parce que sunu mag sunu sunu sunu maam yu njëkk ya mhm. dañ doon sàmm seen ngor di sàmm seen diggante ak euh, seen relation lu am solo la daal waaw. dañ doon sàmm euh, dañ doon sàmmante. kóllëre kóllëre. waaw sàmm kóllëre waaw dañ doon sàmm kóllëre. da nga gis koo xam ne da ngay ànd ak moom tuddee ko doom. ah. di euh, ànd boobu yàgg lool lool lool lool lool mais léegi da ngay gis ko ak nit kii xaritam la ngeen dox lu mat ay ma euh, du mat sa un mois kii jaar fii kii jaar fële kon luñ doon woote kon xëy na peut-être nekkul. nekkul am moo tax mooy àndandoo yomb na a jafe. Mm-hmm. loolu pour yee doomu aadama yi a. kii mm-hmm. waaw am na solo wax dëgg neex yàlla am na solo euh, Mbaye Babacar itam dafa génnee single bu bees euh, tuddee ko sa deng-deng euh, mm-hmm. jëlaat son Youssou Ndour. wayaat ko Mbaye lu la ci xiir. waaw cool. Mm. <laughs> sa deng-deng daf ma yàgg neex. Ah. morceau Youssou Ndour boobu jàppaloo bàyyiloo mhm. donc loolu moo tax parce que way mbëggeel yi bëri na hmm. ah, yaakaar naa ni nit mënu fee way wayeti mbëggeel loo xamante ni gaa yi wayuñu ko hmm. donc moo tax ma ne xaaral ma xool ci bagage yi mag yi defoon hmm. ma jël boole kook sama sama xam-xam andi ko muy doon lu bees loolu moom ma tax ma jël morso Youssou Ndour boobu sa deng-deng daal di koy jëndee sa deng bay sa deng deng ji ngay foowe ci bëgguloo te bañuloo ma sa deng deng jàppuloo bàyyiwoo bañuloo ma sa deng deng jàppuloo bàyyiwoo sa deng deng sa deng deng bay sa deng deng ji foowe ee eh, yow mi nga jàppul ma mel nii ee eh, yow ko bàyyee ti jëng

c'est un gosse très indiscipliné musicalement mais nak régler la situation yu te ah bon parce que euh, mhm. WhatsApp bi. Hmm. Limi limi yak de. non li rek. <laughs> non mi ngi defar <laughs> ndax mi ngi ñuy facilité lu bari. waaye def na limi yak bari dafa am WhatsApp. bandi WhatsApp. bandi WhatsApp. ak WhatsApp euh, lan seen waaw dañ lay ñuqutu ba nga wax ñu daal di saam say wax te ñoom la ñuy wax ko gën a yées fuuf waaye la ñuy wax doo ko gis dëgg du neex hmm. déggoo ma de foofu de dëgg dëgg am na solo ba àgg ci lool mais li ma ci jaaxal mooy da nga dem ci biir nag nga nga nga yi quoi waaw ah, paa yi nag boo boo bëggee dégg dëgg sax nag nee na papa yi magay day jël hmm. ah kuul day jël hmm. ah, mais c'est grave doxaan de ñu yegg ci rek génération parentale. lu rëy laa leen wax <laughs> pourtant waa ONG Jamra sax ñi ngi may woolu de waaye de. Hmm. buñ buñ maa frente dootuñu ko def. ah en tout cas euh, def nga lu rëy loo xamante ne xaw ma xam nga xaw ma xamoo ko. non damaa plaidel damaa plaidel sunu yaay yi. ah fléau bu xew ci jamono. ah waa dëgg du neex mais boo dégloo waay bi di nga xam ne man mairie laa faral de. léegi yow mairie ñoom ñoo la wax loo ne la pour nga wax paa yi dañuy doxaan. non paa dama leen di bett. ndax xam ah. nga ñun jeunes yi fu ne la ñuy dem. Ah, ah. waaw léegi nag fu nu war a dem daje fekk paa yi Hmm. faaw ñu yoole leen ñu toog hmm. dinu bàyyi ñuy dajeeg ñoom di suñu liggéey yi acca nañu ko déglu tuuti moom itam dellu siwaat ak moom yow booy réewoo sax non réewoo sax yow booy. yow paa yi lay wër yëg nga ko yow Papichou paa ñu ngi lay wër fu ne. paa dama leen a yoole. Papichou la ñuy wër. <laughs> paa dama leen a yoole. ci sam papa njëkkee de. ayca euh, mi ngi ne noonu Papichou euh, Magay Seck tam génnee single bu bees euh, moom moo gën a bàyyi ñëpp Magay Seck xamee lu mu bay da nga may nopp par

li ah oui mais magay agression amour la mooy ya? loolu agression amour nga way yow waxuma la agression deuk be toj dëkk bee tasaaroo bu Yeah. dinañ ko toppati toppati doo ci man dara eh sooy bëgg bëggal ki la yëg sooy nopp noppal ki la nopp moom moo dee ku bëgg la man laa nopp mu nopp ba tee boo neexi bëggal kii lay bëgg nga naan dig ma nopp par la force mu ma nopp par la force sax nga ne dig ma fa woon par la force ni <laughs> ma ngay waxal par la force. par la force. ok. aba nena mu wax par la force quoi par la force ngay wax. aba aw mom ben affaire. aba aw nena ma <laughs> cool est-ce que deng nga ma ngay par la force. <laughs> aba il n'est pas sérieux. sëñ bi laa bàyyee. waaye nag gars yëpp nee nañu morceau bi dana tukkal jamono de. lu leer laa la wax nii. ëpp xaw ma fi nga génn daal waaye eh, eh, nooy na ba àgg ci lool. waaw xam hmm. nga nag xam nga xam nga fi ñu toll nii. Hmm. su nga fo par la force ji. Hmm. moo waral violation des xaw ma nu ñu ko waxatee sax. violation quoi violation yi xew fan yi ci réew mi. <laughs> Ah. waaw xam nga nag euh, jamono dafa toll foo xamante ne. léeg-léeg da ngay déglu titre waaye faaw ngay déglu thème bi. ci biir ak wax ji. parce que bu nee di nga ma nopp par la force rek. nga jàpp ne nit ñi danoo war a xëy di nobbante par la force <laughs> waaye dama koo tere nag ci biir way wi ndax nee booy bëgg bëggal ki la yëg mhm. sooy nopp nobal ki la nopp mhm. waaye topp faru jàmbur ne ko di nga ma nopp te ngay nopp fekk na am na keneen ku muy nopp yow ka la nopp sax dangaa mujj bàyyi ko ne nobbaloo ko ma ne nii la ñuy dunde xam nga danoo toll ci jamono joo xamante ne nii actuellement nii des information yi boo ko bëggee joxe mhm. il faut nga am moo yoo utiliser ba ñu bàyyi ci xel bàyyi xel c'est important bu ma tëbeere ne di ma nopp par la force rek yow da ngay déglu lan moo ci topp bu ko defee nag ma jox la ci ma jox la ci ay tegtal jox la ci ay conseil ndax mm-hmm. boo dégloo gel bi maa ngi naan koon ci biir loo gis ci man loo gis ci man mun naa man sa jantal gee ma neex ak ma ne ko waaye nag man daa am keneen koo xamante ne moom laa bëgg forcé bee baaxul mm-hmm. lu àndul ak naturel baaxul mm-hmm. te jamono ji lu ci ëpp noonu lay demee da ngay topp nit fekk ba ci ay jabaru jàmbur rek lu nekk ngay dégg léegi ci dëkk bi. Mm. nga ne par la force kii dina ma bëgg ci nii maam mu bëgg ma ci nele mm. ba def ci loo xamante ne nii. ëllëg mm. euh, yoon daf lay teg loxo. wala nga am ci problème. àdduna daal lépp looy def na naturel. Mm-hmm. lépp lay def rek na ko ànd ak dal ci lépp nag. dama ko jaarale ci ci ci ci nobante gi rek. Mm-hmm. waaye ci lépp kenn du forcer dara ba ci musique bi ñu nekk. Mm-hmm. waaye di def tempo tempo. waxtaane ko.

ci maanaam bisu feetu musique bi pour ñi nga xamante ne rek c'est des mélomanes. waaw cool kontaan naa. Mhm. kontaan naa ci émission bi di ñaanal ñëpp jàmm ah. mhm. waaw li may lancer rek mooy jàng. Mhm. ñu jàng quoi roñ suñu mag ñi. Euh, keroog dama doon seetaan euh, Papa Youssou Ndour. émission bu mu doon def ak Bouba Ndour. dans ma voiture xam nga bi noonu bi ñu kii noonu. tour bi waaw. Hmm. mu ciy wax lu lu am solo muy musique afrobeat bi jël bi ñu jël léegi. Hmm. programmation bi xam nga dugal ci ay yeneen bagages yoo xamante ni bokk ci. nga bëgg hmm. mu àgg niveau international. du àgg international fii lay yem. baa mu yem ci ñeente yeeg kii mbedd yi. parce que loolu. boo gisee muy wax loolu pour ñun moo tax muy wax loolu. Mhm. pour ñu mën a bàyyi xel li muy wax. ñoom seen wàllu wéy na. seen wàllu wéy na. Mhm. pour mën a egg moom fa mu egg. Mhm. war ñu romb ko. moo tax muy wax loolu mais du pour ñun xarab ñu parce que moom li muy am am na ko pare ci musique. donc dañuy wan yoon bi rek. di ñaan ñëpp nag ah. muy niveau talent yi studio yi man bu ma yoroon studio. am na yenn morceaux yoo xam ne du ko jénnee xaw ma dara nag mënuma dara. Mhm. am na yenn morceaux yoo xam ne du ko jëndee Papa Amath. Mhm. donc du leen du leen jox conseil ku ci war a jëndee afrobeat yooyu ñu jël. donc ñu xoolaat ko. Mhm. bañ ko malaxe malax malax la. afrobeat afrobeat la. yeneen musique yeneen musique la. mais boo bëggee def yeneen musique. dama ñuy def musique yooyu nga gësu ci ñoom. ngeen di créer ay mbalax waaw xam nga loolu je pense que loolu mooy mooy njëriñ bi mhm. loolu mooy njëriñ bi di leen ñaanal ñoom ñëpp mhm. waaw kenn ku ci nekk sunu borom matériel li ngay def musal la mosol la mhm. jàmmal la ba li nga bëgg sunu borom defal la ko jaajëf ayca euh, Papichou euh, yow ban kàddu ngay wax gars yi ci fête de la musique bi waaw comme li may wax rek euh, ñu gën a def ay recherche ñun ñëpp que muy jeune talent yi que muy xale yi ndax jàng du doy déjà ñun ñëpp ay xale lañ dañoo ne ci yoon di jàng rek mënaguñu waaye comme damay revenir ci li ma wax légui rek tey bo mm-hmm. boo ñu né sama papa dafa mën a doxaan bi mm-hmm. genre euh, pour ñu véhiculer yene message yi il faut ñu mëna wax lo xamanteni day attirer attention nit yi donc pour ñu mëna jël leçon lu bari bari bari bari ci mm-hmm. li ñuy wax donc euh, ñu wax rek ne Sénégal nanu tàppi xool ñun ñëpp yéenante jamm mm-hmm. té aar bi du course de vitesse. Mm-hmm. du compétition. Mm-hmm. ku ci nekk da ngay bay sa waar rek di ñaan yalla euh, defal ci ndam. donc ñu ngi lay gërëm aussi ci invitation bi di wax euh, bala fête de la musique bi di ñëwaat. yalla na ñun ñi fi tok ñëpp ñu ak keneen ku ñuy déglu fekk la ci benen level. te mu jug la ñu ngi nuyu ñëpp ñuy déglu aussi jërëjëf. aja jaajëfal nañu ko mom papi chou jaajëfal itam mbay Babacar dañ leen di yeewi ma te Père Amath Somb ak. Magaye euh, ñenen euh, rejoindre nous ñu New ba légui rek ci émission euh, King Feeling spécial fête de la musique. prophète des temps modernes. Bismillahir Rahman Rahim. Le monde ne cesse et ne cessera. Et cela a jamais pour toujours de témoigner de ton amour incommensurable. hommage au prophète paix et salut sur lui à l'image de Mamadou Abdallah euh, Masek euh, borom fondation Rasoul, comme euh, Malik malik Diabou Sek de Saint-Louis du Sénégal mu momitam Danan itam des boo de ne deesu ko ci anam alors avec sa belle voix pleine de sensations et d'âme mom recevoir ak Ousseynou Laye di Domi Cambérène bi dit un jeune pétri de talent tay nak ñu dajale ay ci plateau spécial fête de la musique booking FM ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Malick eh, dalal. King salaamaaleykum maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal bu baax di équipe Mm-hmm. li fi nekk yëpp quoi. Mm-hmm. King FM wax dëgg yàlla ñu am cër ci doomu aadama. ñu respecte nit. Mm-hmm. te loolu moom wax dëgg yàlla mënuñu fee ñëw ba jógee. te mënuñu bañ a wax loolu. accueil bi neex nañu. lépp lu fi nekk lépp loo xamante ni jëf ngeen ko ci ñun. vraiment sori na suñu xool ñi ngeen bëggee ñëpp ñëpp ñëpp ku lim jum ñëpp. merci beaucoup Ousseynou laay ñu ngi lay nuyu. <laughs> ñu ngi lay fay Alliance Cool. Eh, yow itam ñu bàyyi da nga nuyu ak auditeurs yi ak internet yi. waa di wax ni salaamaaleykum. salaamaaleykum di nuyu Sénégal àddina. di nuyu suñuy waajur yi suñuy mag yi suñuy xarit yi. Mm. fans yi ak soppe yeeg ñëpp di nuyoo tonton Amar. amat Samba. di ko jaajëfal. di ko wax ni ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko sunu kanam. yàgg ko def muy royukaay. ak euh, sekk ndaanaan. Mm-hmm. di bëggee moom it ma ngay waroon baax. di siyaar waa King FM yëpp. Mm-hmm. di leen siyaar di la siyaar yow di jëg

Euh, gars yi nag euh, tey loolu lañu bëggoon euh, kenn ku ci nekk nga wax ñu lan nga yaakaar ni moom moo indi jafe-jafe yooyu Malick Diaboussé jërëjëf Koul bala ma ci bala ma ciy xuus mm. maa ngi dégg ma lay ñaan rek mm. di rendre hommage à tous les acteurs culturels am na solo waxuma musicien rek mm-hmm. mais animateur auditeur mm-hmm. képp koo xamante ni yaa ngi ci yëngu mm-hmm. journaliste culturel yi maa rendre hommage di de maa ngi nous ñaanal ñu mhm. passer une très bonne fête mhm. may jaajëfal tamit ñi ma fekk ci plateau bi mhm. suñu waajur papa Amath di déjà jaajëfal bu baax ndax sànq dama dugg si rek ne ko ah amna ci way amna ci way leer wo xamanteni ni waajur faaw nga indilat ñuko magay sek Seck ko léegi-léegi mathématicien nga <laughs> mathématicien musicien bu mënul loolu un plus un. Mm. deux plus deux. Mm. doo mën a way. parce que musique lépp xoola ca la ca tënku. Mm-hmm. faaw nga mën calcul. Mm-hmm. musicien bu ko mënul. Mm-hmm. doo mën a way mais nag man ànduma ci ñu ne musique tamit dafa yàqu. musique mu ngi dox mi ngi dem ñi ngi sant yàlla di encourager ñëpp. di jaajëfal suñuy baay suñuy mag ñi nga xamante ni dañ ko téye mu rafet ba ñun ñu mën a am amour biñ ci bëggee dugg suñuy waajur kontaan. Mmh. ñaanal ñu parce que lañ daan wax bu njëkk njëkk njëkk waxatuñ ko léegi parce que ñii dañu ñëw révolutionné xam ne métier la musicien yaa ngi yóbbuwaatee ñuy aj yi ziyaara ji rasulilaay musicien yaa ngi def lu baax ci dëkk bi mmh. musicien lépp loo xam ci lu euh, ci lu yiw mi ngi koy def kon nag macha allah ànd ma ci ne dafa yàqu seulement nag dafa am loo xamante ne dafa lakk àdduna mmh. muy économiquement àdduna dañoo suuxe problème économique ñu ngi koy tudd fu ne ci àdduna musique nag bala nga koy mën a def wala yow miy dugg ci boit bi wala yow mi jënd CD wala yow mi koy def di fay ay musiciens wala yow mi koy def di dugg ci boit yi. Mhm. ñun ñëpp dafa am foo xamante ne moo ñu tënk mooy xaalis te tey àdduna dafa nekk ci crise pourtant gars yaa ngi tëgg lañ doon way ñi ngi koy way lañ doon mën tey la gën a yokk technologie dafa gën a avancé ba nga xamante ni mbir mi war nañ ko gën a mën a mën mais problème bi mooy yow cool mhm. booy wootee ki war a wuy si est-ce que am na lu mu la mën a wuysee chaque samedi fii da nga daan gis artiste bu daan tëgg lundi mardi mercredi muy fees mais nag léegi mënatuñ ko loolay problème bi donc nag bu tënkoo foofu nag artiste bi tamit faw mu am doole ginnaaw dooley poos mm. mm-hmm. pour mën a def produit bu baax jaarale ko fi mu ko war a jaarale ñëw indil ko askan wi mm-hmm. mais bu mënul loolu li fi ne lay jël rek suppu kànja daal di jëre sotti mm-hmm. donc su su demee noonu nag mbir mi jaxasoo sama euh, sama mm. sama vraiment résumé bu gàtt rek. Mm. Euh, loolu am na solo gis-gis bi rafet na dañuy bàyyi équipe bu rédaction bi ñu euh, tënk xibaar yi ci kàllaamay Kocc ak nasaraan bu ko defee ñu wéyal euh, waxtaan wi nga xamante ne rek moom la ñu tàmbali woon ak yéen alors ñii mën nañu toog bu ko defee rek kii dugg si. neex na ma lool ma dugg kenn xamu ko mbëggeel jaaxal nañu mbëggeel gi ma dugg kenn yëgu ko mbëggeel yombal nañu Fatou Moussa Diouf yaay yaayu joojo Père Diaw Sofa bàyyi zaal ak ajee gi moo dugg kenn xamu ko bëggeel jaaxal na ma bëggeel gi moo dugg kenn yëgu ko big laay séeri caajo mën nañu koo tànn wax ma ki nga tànn li daa sàmm koo tànn moom fàttali laay la tippoo laay kontaan jox naa la sama reeni xol wommat fu neex jëme gëm naa ni may segi di mbëggeel waral sa di joow abu kay siiri caane fay jigéen falloo King FM King FM La musique, c'est nous. La musique, c'est nous. Game over. toute l'actu sur King FM. Jérôme Barnier. Bonjour à tous et bienvenue sur la 99.4 King FM Dakar. Nous démarrons ce flash d'information par la manifestation de la plateforme Art Lignoboc prévue ce vendredi qui a été autorisée par le préfet de Dakar à l'Insamb. La dite manifestation sera tenue sur les allées du centenaire à partir de 15h. Les auditions entamées depuis le lundi du 7 juin dans l'affaire Petrotim se poursuivent. Le coordonnateur du Forum civil Biraim Sek sera entendu ce vendredi par les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Pour rappel, Pierre Goudjabe Atepa, Samuel Sarr, Babakar Ngaraf et le DG de Petrosen Mamadou Faye ont déjà été, ont déjà été à la brigade des affaires générales de la DIC. Affaire Petrogaz toujours, la coalition Beno Bokuyakar ne veut pas que le scandale à 10 milliards de dollars impacte sur le euh, dialogue national. Selon le secrétaire exécutif permanent de Beno Bokuyakar, la posture à adopter est simple, elle consiste à se fier à la justice. Des individus non encore identifiés ont braqué un magasin à Angle un quartier situé à la périphérie de Daradjolov. Euh, hier nuit, ils ont emporté avec eux la somme de 150 000, un sac de lait, un sac de sucre, un carton de thé, un poste télévisé et un téléphone. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Cannes 2019, nous y sommes. Les journalistes sénégalais demandent 210 accréditations à la CAF, une demande que l'instance dirigeante du football africain n'entend pas satisfaire. Pour le moment, la cérémonie d'ouverture est, prévue à 15h heure de Dakar. Le premier match opposera l'Égypte, pays hôte, au Zimbabwe à 20h heure de Dakar également. Le Sénégal, quant à lui, euh, entre en liste le dimanche 23. Il affrontera la Tanzanie une note de musique pour terminer. En ce jour qui célèbre la musique, nous vous proposons musique de Titi. C'est ces notes de musique qui mettent un terme à ce flash d'information version française. La partie wall of c'est tout de suite. FM jàngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak ñun King FM Dakar 99.4 xibaar ci ak tank ñu tambali ko ak plateforme bi le jaar li ñu bok ñom nak àjjuma bi ñu weesu bañalon nañ leen seenuk manifester bu tay bi nangul nañu leen ko préfet bu Dakar dial une Samb mo jël bi leen ndogal manifester gi dina euh, tambali bu ñetti waxtu jotee euh, ci allée yu euh, centenaire ñu wax ci ciowal pétrole bi nga xamante ni moo waral boobule manifester sax lundi bi ñu genn ak tay ñu bëri ña ngay jaabante foofule ca euh, dikk tey nag coordonnateur bu forum civil di Birahim Seck moom la enquêteur yi di daal di déglu ñu fàttali ni Pierre Goudiaby Atépa Samuel Sarr Babacar mbay ngaraf naka noonu DG bu Petrosen di Mamadou fay ñoom déglu nañu leen ci brigade des affaires générales bu euh, dikk mbiru Petrogaz ba tey ci la ñuy war coalition Benno bokku Yaakaar ñoom daal di euh, def seen kéem ngir scandale boobule bañ a yàq dara ci woote waxtaan bi ñu amal di dialogue national bu ñu sukkandikoo ci secrétaire exécutif permanent bu benn Bokk Yaakaar moom daal mu wax ni yëf yi li ci euh, li ci gën mooy ñu bàyyi ko ci loxo yoon ñu wax ci ay defkatu ñaawteef yoo xamante ne xamaguñu nag ñan la ñoom ak cong la ñu amal ci magasin magasin foofule ca angle njaxaay ma nekk ca boor yi daara jolof ni ki démb yëf yi am yóbbu nañ fa lu tolloog 150 000 ci ay koppar naka noonu saaku meew saaku suukar euh, keesu warga ak euh, ab télévision naka noonu téléphone gendarmerie bi na ci ab l'enquête kan fi mu toll ni euh, tembe nag wuréwe dem na këng journaliste sénégalais nak nonu ña nga foofule ca Égypte ca Caire ñu wax ni nak ñom ñaari téeméer ak fukku ci accréditation la ñuy sàkku kaaf fi mu tollu ni mënagul joxe mbir euh, mu ni mel ñu fateli ni nak cérémonie d'ouverture bi dina am bu ñetti waxtu ci Dakarou euh, di feggoog juróomi waxtu foofule ca Caire euh, premier match bi dina dox ci diggante Égypte mi dalal xew-xew bi ak Zimbabwe 20h heure Dakarou di mec 22h foofule ca Caire Sénégal mom ci wàllam dimanche lay dugg ci compétition bi dina ci daje ak Tanzanie ñu jeexale ko ak wàllu musique tey di bés bi ñu jagleel lii di musique 21 juin ñu leen di dégtal wayu Titi bi nga xamante ni moom la jagleel musique lii la fi woon xibaar yi ci ak tënk jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun Coro Mbar nday la won ci kàddu gi Kader Lo mo féete won ci xarala gi ñu bàyyi di jëkkul mu wéyal ak gan yi fi ak bobu ñu leen di ñaanal ngeen am kendaluk jam naka nonu bonne fête de la musique lañuy wax ñepp ñi nga xamanteni ni sa safoo King FM Dakar la première radio musicale du Sénégal jàngeen jëf. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale du Sénégal. Wow. Ousseynou waaw xale bi ree na wasaay xale bi lu muy ree dëgg dëgg xale bi reetaan na laaj leen ma lu muy reetaan wax ñu lu muy ree

ah wax na la ko très bien Lisa Jordan nee na wax nga ko sank malik moom mi ngi doxle. Lisa mom Lisa ma <laughs> nga bañ na ko bi mu dugg mbaxane ko am xaalis la sol. <laughs> waaw nag ñu ngi sante yalla nak te xam nga nak li ci gëna graw mo mooy. waaw <laughs> ah dama damaa damaa laal nag hmm géejug sayidina Mohamed sallallahu alayhi wasallam. hmm dugal ko ci musique bi. manam hmm. muy révolution. ok ñun musiciens yi hmm. buñ ñu tënk. Hmm. sayidina Mohamed kenn moomu il est universel dañ ci war a wax mhm. te ñun sax dañ ci am mission bu am solo mhm. boo xamante ne dañ ci war a wax nouvelle génération bi par rapport ak waa ju baax jooju fi mu ni mu toll mhm. euh, ni mu mel ci àdduna kooku mooy lépp ñun ñi ñoo ci war a wax man te ak maa ngi ci projet boo xamante ni gis naa la Magay Weuz tonton Amath waykat yëpp ñi ngi may déglu ñëpp yéen animateurs yi dañ leen ciy woo à travers le livre bi nga xamante ni Cheikh Mouhamad Abdallah Thiam moo ko bind way lépp Seydina Mouhamed ñëpp laa ciy woo ñu musique ko nag am na solo ayca Ousseynou Laay Weuz moom ngeen di dégg noonu ci suuf yow itam euh, euh, il faut ñu ñëw ci nga wax ñu sa euh, point de vue par rapport ak tolluwaayu musique bi ndax jafe-jafe ngi ci nit ñaa ngi koy wax ndax yow bokk nga ci ñu dund jafe-jafe gi ak lan nga yaakaar ni moom mooy li koy saafara Ousseynou déggatuma ko de wal wal foofu noonu parce que man dégguma Ousseynou hmm? waaye sama jigéen bi du too ndax daane dafay dem xelaa dëgg-dëgg man de naw naa ko moom de doyloo naa ko tuuti. eh jóg leen ñu ñambax ñambax yi wuy yaay wuy wuy. waaw xale bi ree na. waaw tuuti ree na. waaw. mbokk bi yaa ay sët yaa bokk. sa turee tànn laaj leen ma lu muy reetaane ngay wax ñu lu muy ree was waxal oh. woo eey Ndey Juuf ay sa turee tànn Ndey Juuf seetaane ay sa tullu muy rek si jaabi waxtaan ak jaabi jaabi bàyyi ba sonn mu dee ni ñuy jégaluwaat gars yi bu baax a baax ko euh, micro yi dañ doon xoolaat euh, Ousseynou euh, dañuy revenir rek ci laaj bi bu fekkente ni jàpp nga ko ba tey waaw laaj bi mooy musique bi yan problème lañ ciy jàkkonteel mhm. xam nga musique bi fi mu toll nii ñii dañuy wax dafa saturé. Hmm. ñii dañuy wax nii la walla walla wala boog ñii di wax problème mu animateur. ñii di hmm. wax problème mu ba dafa bari animateur yi du seen yoon ñoom. waaw dafa bari luñ ci tudd. <laughs> lu lu lu kenn lu kenn ñemeetul engagé. Hmm. mais nit ki li mu jàng boo amee ku mel ni DJ Cool Pape Cheikh wala Exidex ñi nga xam ne passion lañ ko defoon def ko métier dem jàng ko ñëw di ko tari. kooku dañuy xool ku am talent. ñu fexe ba wan la àddina. bu fekkee nag ku ko jàngul la toog ci mbedd mi yor micro ba xëy ñu ubbi rajo tegal la micro peut-être dafa am ay conséquences yu si nekk li nga xamante ni musiciens yi kenn ñemeetu ko. mel ni Ousseynou ñun la jokkoo bi baaraam de ñun. <laughs> non dafa am dafa am ku si ne jokkoo bi nañu baaraam de. ku si daf ci am part ku si ne daf fi am part ko xam nga ñu bari ñu bari lu ko wax. Hmm. ndax am na loolu boo ko cité fi mu nekk nii ñu ne ah animateur ngay mais ñi mu nekk seen métier. Hmm. te ñu te ñu am si passion. nekk ci def ko liggéey ñooñu xoolunu leneen lu dul talent bi nga am wala ku génne loo war a génne mu jaar yoon nga ñëw ñu tegal la ko donc kon bu loolu nekkee feebar aussi tamit nit mënatul dugg studio ba am ci benn benn benn visibilité mm-hmm. mais pour nga jël sérieux benn affaire def ci ay millions yu bari yombatul def ay millions yu bari ñëw ñu dugal ko ci trois wala di xaar wala benn affaire boo def nit ñi dootuñ ci sawar da ngay hmm. dem dégg naa sànq tonto di wax wala eh, mbay Babacar di wax studio da nga ko war a taamu bi ngay enregistré hmm. mais bu fekkee na nga taamu studio par exemple bu mel euh, Prince R hmm. nga dem ñu laaj la benn temps de million pour studio kase musicien yi nga xool des bons musiciens ku mel ni magay ñëw ni ka nangam xool qualité lum la jàppale nga war ko jox limu wara jokontol ci ci ci moyen nga bëgg ko def ci loolu le paré liggéey genn ñu tek ci tiroir bi ngay top ay nit pour ñu tek wala nangam te muy liggéey bi nga xamné yow da nga jël au sérieux pour liggéey bi jaar yoon koku bu démé nak ba loolu jafé la non doto doto sawar ci. Hmm. def sax wa mais ñi nga xamanteni ni nañ si. animateur yi daal ñom ñoo teggul li ñu war quoi. yow ma fofu nak de. dama dafa am ay fever yu ci am. mais am na benn ci feebar yi ah. waaw ngeen ma jéggalu. Hmm. muy li je pense que li ci solo li muy wax nag mën naa am lu ci am tamit. waaw wax dëgg yàlla hmm. am ngeen ci part de parce que mooy bi ma leen bi may encouragé sànq ñëpp laa félicité. Hmm. parce que affaire bi du waykat yi rek ñun ñëpp a ko bokk. mais euh, euh, cool dafa am lu ëpp solo. mooy musique sénégalaise wala culture sénégalaise amatul marché de distribution. marché de distribution amatu fi jeex na tapparam jeex na fini. parce que musique chaîne la woon Magaye uh-huh. producteur dafa amoon koo fi déggati léegi dëgg la de amatul producteur dafa manqué da daan dégg Talla Diagne da nga daan dégg Omar Kadiaga ma sa ma saer ma déggatoo ko fi amatul mais Malick bu génn sa seere yorol sa benn saak bu ndaw mm-hmm. di wër say nit yi nga xam mm-hmm. pour ñu koy jënd mais ñooñu tamit mais Malick feebar feebar boobu feebar boobu ah. xam nga tey sànq maa ngi wax ci départu ku si ne responsabilité bi nga am aussi producteur buy produire dafa am lu mu bëgg dëgg la bu fekkee ni ñi yore musique gu Sénégal wala ñi yor culture jàppalewuñu artiste ci côté da ngay génn CD suba ñu jël ko taxaw ci tali bi yow mi ko yow mi ko génne sa CD eggagul sa dëkk carrément nga fekk ñooñu ñooñu sax jaaye ñooñu jaayetuñu ñu nekk ci rond-point technologie dafa avancé té ñun tamit jëluñu woon temps wu accompagner technologie fi mu nek mhm. CD ci bopam da ngay duggati kër do am support CD amatul c'est-à-dire dañu waroon teel a fagaru xam ni technologie mi ngi avancé ñun nañ ko jéem a topp ànd ak moom tey clé USB yi voilà foo dem am na fa oto boo da ngay dugg oto léegi amatul foofu ñuy teg CD c'est-à-dire ñun on est en retard par rapport ak technologie fi mu nekk. problème yi du du du du rek gaa yi tëgg tuuti na gaa yi tëgg lu rëy. maa la wax loolu ñu ngi way moom. franchement ñu ngi way ñu ngi yaa ngi teg. ñu ngi way yaa ngi tëgg. musicien yaa ngi gën a mën a ñu ngi way ñu ngi way <laughs> ñu ngi tëgg ñu ngi def ñu ngi tëgg. mais xam nga par exemple. Euh, euh, fi mu nekk la kenn mënatul dindi. parce que tey da ngay génn CD kenn naa kay dugal ci portable am boo duggee groupe WhatsApp yëpp. gis ñu partagé ko fa kon donc côté promoteur ñoom dootuñ avance ci côté boobu ñoom ñoom promoteur moo gën a yomb sax nga génn benn affaire mu éclaté ñu jël la ànd ak yow mhm. def ak yow quelques programmes moo leen gën a yomb léegi ñu jël la dugal la studio léegi waykat bu fi jëlul sa initiative dem dugg studio dem def ko doo doo génn maa la wax loolu ah, waaw amatul loolu amatul kenn duggatul ah, jëlatul xanaa ku lay jàppale dama ne soo xoolee soo xoolee ah, cool hmm. producteur léegi sax amatul parce que bu njëkk da ngay génnee benn kas benn CD. Mhm. soo ko génnee danaa demal ci Talla Diagne. Mhm. man 97 bu may génne euh, rëbëkat bi. Mhm. ba mu génnee ah Talla Diagne moo ko distribué. ñu ma seer Diagne. doo ko gis ñu koy jël di ko jaay ci mbedd mi comme nu mu mel nii. moo tax temps yooyu producteurs yi dañoo sawar pour produire euh, euh, euh, mën a ma produire artistes yi mm. mais léegi kenn sawartu pour produire kenn parce koo produire loo si am marché de distribution bi doon wax sànq mais mais est-ce que est-ce que tam côté boobu technologie bi xawul ray tuuti musique bi ah, daf ñu jiitu te ñun amuñu ah, woon temps wu ah, teel a xalaat ni ñuy ànd ak moom wala nga ci doon xam dara cool mm. Youssou Ndour ñu koy rendre hommage suñu papa jooju mm-hmm. na génne album fii Sénégal quatre exemplaires yi ndan daan xëccoo. Hmm. ku ko daan jaay sax ñu naan non kii ça va pas quatre exemplaires. Hmm. Youssou Ndour ne ko mu génne di jaay fii Sénégal vingt exemplaires jamono juñ ne c'est c'est général. marché de production amatu fi. amatul amatul. dëgg la producteur ak. Hmm. kii jënd ak. technologie bi la rek amatul amatul ça plus. waaw ok léegi euh, maanaam euh, jàngoro bu ne du ñàkk lu koy saafara. fi mu toll nii fi situation bi toll. fi jamono toll nii ci musique bi. lan ngeen yaakaar ni fi mu ne moom mooy régler problème bi. artistes yi am xaalis. naka. artiste dafa war a ay kenn eh, du ko am na information boo xamante ni. <laughs> man toog naa le ministre de la culture. waaw. matériel technologie bu dugg Sénégal. Mhm. télévision bu fi dugg. Mhm. Mhm. am na ci pàcc bu nu jël. bu jëm euh, fi nga xamante ni fa la xaalisu artistes yi di dugg. mooy Sodaaf. Sodaaf man maa ngi Sodaaf ah. oh, looy rayante day fekk nga mën a maîtriser la ngay rayan la nga ca waroon am lan la jëlal woykat yi nga laaj leen. Euh, kii la waroon jox lam la waroon jox lan la Sodaaf man di xaw ma maa ngi yow a de. mais mais yéen a ngi dégg seen naataango artistes yi ñoom. ñu ngi mais c'est bien c'est bien ñu ngi ñu ngi ñoom tam di ñaxtu a ah. c'est bien Sodaaf nit laa ko tegoon. mais cool mais cool est-ce que xam nga est-ce que benn affaire ah, Malick. Ah. sama wax mi ngi dellu si waat. Hmm. au départ. bu fekkee ne amatuñu CD euh, xaalis ci CD yi cassette yi. Hmm. est-ce que animateurs yi amuñu ci côté di jël qualité. lo xamanteni ay talent di len feñal jamono ji comme ni ni def sama wax mi ngi delu ci pour musique bi feñ dañ ni dafa nan nga wax euh, si si jeune yi euh, ku ku wayantu sax wala xamoo accord da ngay jékki gis ko xamanteni studio ben salle teju enregistrer ben morceau génne fatta ci nit ñi mm. donc kon da ngay dégg benn affaire est-ce que pour léegi musique bi dellu si waat ñu mën a teel comme plateau yi ngeen di def Exidex bu tegee plateau bi nga TFM day take en live jël benn musique euh, musicien samedi soir wala dara tégal ko orchestre am mu won adina bu njëkk lool la gissone bok bima ay 2000 2002 2001 dama daan gis ga télé. wax de diapason boulevard. wax samedi soir ngay daw kar artiste bi invité tay RTS. Mm. ci émission bo pour mu live ñu xol légui nga giss ko ko engagé talent benn affaire mais léegi yow da ngay am talent fi mu wax sànq départ bi. da ngay dawa dawa dawa dawa daw sa morceau boobu boo xefee da ngay mujj sonn rek. toog il faut ngay système comme Malick Diabou de ak a mën a eh, eh, eh. système. non man je vous rends hommage je vous wax dëgg cool. Uh-huh. damay seede leen damay toj waaw maa ngi yow ñi ngi soog a jàkkaarloo. Uh-huh. non damay rendre hommage animateur Sénégal yëpp. Mm-hmm. dëgg la maa ngi yow ñu ngi soog a jàkkaarloo. rawatina te chaque jour. chaque jour ñu déggante. nga non nga tek sama son. te do ko gis te maa ngi lay soog a gis. te do la gis mm. exactement donc non la ci animateur Sénégal yëpp mel. Mm. dëgg la vraiment maa ngi leen rendre hommage. peut-être nag métier bo gis. abdou du am pourquoi Malick Diabou Seck euh, pas ñi ci des. non j'ai pas compris maanaam pourquoi ñoom ñun ñëpp ñuy teg Malick teg ñi ci des. Euh, gars yi euh, teg ñëpp de yow da ngay teg ñëpp. Euh, eh, teguñu ñëpp nag yow artiste yëpp seen xarit la Ousseynou Laye miy kaas. <laughs> Eh, eh, non man man xam nga man maa ngi sant yàlla Ousseynou mi ngi kaas de. xam nga man xam nga man maa ngi sant yàlla. non mi personnellement dama koy déglu. non man maa sant yàlla ñu ngi may teg. Mm. fii King FM moo déggoo sànq dama wax gis nga loo gis. Mm. cool mm. saaku pom de terre sax. pom de terre bi ngay gis. bu ci yàqu dañuy xam ne am na benn bu ci yàqu c'est-à-dire ça sa ça veut diir que dire que ni su ma su ma waxee ni animateurs yi mm. dama jël ñi nekk Sénégal ñëpp gis nga euh, limuma mm. mais am na si ñoo xamante ni mm. tey xoolunu sa alal amal àddina ak li ci biir gisuñu loolu tey kuul yaa ngi ko léegi mu ngi lay door a gis excidex mii bi may mujj def sama soraano bi sama live yi nga xam ne moom laa doon def deux mille deux mille six xaw ma deux mille neuf la génn teg si télé bi ne xool leen ko fa mu départ te mu suñu gisee mhm. dañuy toog ni di waxtaan mu ñëw fekk li mu suivre li mu gis la wax kon kooku xoolu sa alal xoolu li nga am xool xam nga lan la xam sa talent bi nga am mu wa am pour wan ko àddina loolu nag sànq foofu laa départ ma ne ñi ko jàng te nekk ci te am si passion di dund musique hmm. ñoom xooluñu Ousseynou Laay daf poosam dafa diis wala dafa oyof dañuy xool ah, dafa am talent ñu war ko teg ñu teg ko hmm. mais du du du Sénégal ñëpp mais animateurs yi ak euh, journalistes yi kenn ku ne liggéeyam lay def te et puis la mu gis lay wax mais am na ci ñun musique sain ñun ñuy sax dangay gis léegi kenn ku gàddu clavier léegi wala guitare toog ci néegam jéewantu dem si orchestre suba mu def ay fausse note yu bari nit ñi di ko dégg si si si mais mais mais gisu leen c'est-à-dire est-ce que est-ce que est-ce que aussi euh, yaakaaru leen ni mm. par exemple ni ñu libéraliser euh, marché bi moom moo indi jafe-jafe yi parce que bu njëkk euh, ñi fi nekkoon ci ay waykat dañu bari woon te ñoom ñu di woon ay ndaanaan te ñu ñi ngi fi ba léegi mais daanaka amatuñu benn cote de popularité bi booy yi nga xamante ne ñoo fi nekk di way nekk ci koñ-koñ yi ñoom ñooy feesal boîte yi. parce que euh, parce que affaire ah nawetaan la daf daf ci bari affaire nawetaan nag <laughs> affaire bi léegi dafa am équipe de football de Real Barça non dëgg la parce que mais na c'est comme ça. Mhm. parce que da ngay gis sax artiste bu génneegul album feesal grand théâtre dëgg la. ku ci mel ni sii di dëgg la ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen liggéey naa ak ñoom. dëgg parce que léegi il faut tamit loolu système la. Mhm. tey génnee gu ma album waaye bu ma jógoon tëngee gépp ay jóg de mhm. su ma wootee stade amitié ñu fekk ma fa mais loolu yëpp euh, il faut nga il faut nga il faut nga il faut nga mbappat ko parce que àdduna musique bi léegi moo toll foo xamante ne faaw nga koy systémaré comme sa waay ni muy def nee nañ ngan dum ku mën a systémaré eh, waaye billaay système yaa ngi dégg ah, billaay eh, eh, système moom dama koy tooñ barke yàlla système système moom dama koy tooñ barke téere maam yàlla système moom wala lan mooy système dama koy tooñ barke téere <laughs> léegi ñi euh, nga mm-hmm. xamante ne nii sax génneeguñu album daanaka ñooy feesal boîte yi dëgg la keroog damaa dem studio am ku ma ku ma doon enregistré ku tudd Ibra Naajo ma ne waa kii kan la. kooku maa ngi koy dégg mi ngi lakk dëkk bi. mi ngi tëj dëkk bi. mais mais amul album single la def. single benn single ay waay Samba. benn boîte la romb. ay waay Samba ah. léegi ma romb ma romb ma romb Ravin xaw ma la Ravin la romb xaw ma ma damaa foogoon ne <laughs> ah. Est-ce euh, fa rang ma chapeau donc donc c'est des choses yo xamantene ne ku ci sa wa ko ñoy jog vous la sa wa gox ñoy jog la. Mm-hmm. mais est-ce que du catastrophe aussi tam buñ démé ba def Vous koñ. Mbaye Karim ay eh, amna eh, système. yow ko fi dé non système amna système. Ah. non non non ah, système. non amna système barke Serigne Vous amna système dama lay wax sama système. la constance. Mm-hmm. quel que soit bu doon juróomi nit. Mm. nañ fa fekk may def li may def. te gëm li may def. Mm. te bëgg li may def. Mm. c' est c' vrai que nag loolu moom sama système la. musuma ci yàqamti musuma ci teg bët sama nawle bii feesal feneen ak feneen. Mm-hmm. li may def ay nit bëgg nañ ko. Mm-hmm. musique bu <laughs> comme ni ñeneen ñi def ñëpp Sénégal waykat yëpp musique bu discipline la ñuy def mais man dama gëm ni man sama yoon lii la ma toog fa. nekk fa di way naa reggae way naa lu ne. maa ngi nii di woy Seydina Mohamed. bi nga tàqanti <laughs> ko Seydina <laughs> <laughs> Mohamed naa ba fi mu nekkoon ba tey de. mi ngi fi. am na ñoo xam ne fa ñu nekkoon jóguñu. waaw constance quoi dafa am solo aussi. parce dimbali maa ngi liggéey ak ñenn ñi. am ci mel ni Kumba Gawlo tey. amoo xoolee liggéeyam. Mhm. damay damay parce que ñoom fa ñu nekkoon ba léegi. Mhm. jóguñu fa duñ ko teggi parce que boo seetloo Youssou Ndour mi musique bi mu doon def ba léegi mhm. Euh, vent bi yóbbaale wu ko. Mhm. maanaam maanaam li xew léegi ba léegi moom mu ngi resté fi mu resté te ñi ko mhm. doon déglu ba léegi ñu ngi koy déglu dëgg la vraiment jabu mhm. mi ba léegi ñi ko doon déglu ñu ngi koy déglu damay déglu musique am mais fa mu daaware ba léegi fa la nekk dafa musique donc c'est important affaire yi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ña ko ña ko ña ko ña ko ñi nga xamante ne ni xam nañ ne mbir mi parce que sénégalais rek la yàlla may ci musique mu adopté ci musique yi am ci àdduna bi yëpp mais pour nga adopté ci mbalaxam

am ci ben passion bi. Mhm. am ci ben ouverture bi rek. Mhm. Euh, gëstu ci tuuti rek. Mhm. luñ ci bëgg def mën nañ ko def. dëgg la parce que dañu gaaw a adopté. musique nigérien yi buñ ko defee nga ne ñun ay Niger musique varien yi. musique bu ñu adopté da nga naan ñun ñoo ko moom. dëgg la donc donc buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko. mais cool moom posé que question de. parce que tey musique la ñu wax fête de la musique. dëgg la mais ñoom musiciens yi. comme ñun ñu ngi wax léegi yan jànk yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ak sa ak ak centre yi ci biir studio yi. waaw non am na solo wax naa ko léegi nii. waaw man des fois da ngay ñëw studio fekk fa ay morso doo fa fekk sax waykat bi. Mhm. dèjà ki toogoon fii léegi mu ngi naa man sax morceau morso bi magay moo ko tëgg ñu teg morceau bi ma kon lii man maa ko joué woon. parce que da ngay ñëw léegi amatul arrangement bu bu. bu njëkkoon da nga doon répété. structuré lépp. def ko ni nga ko war a defee. Mhm. mention spéciale Ibou Ndour. damay liggéey ak moom mais damay gis ne affaire bi daf koy structuré. teg ko mhm. foo xamante ne. Mhm. dina daw 10 ans 15 ans. ni waaw dafay nekk musique. mais léegi loolu amatul. booy dañuy yor seen xaalis ñëw. te borom studio yi dañuy liggéey <laughs> mais li ci ëpp nag arrangeur yi. aussi des fois ñoom it ñu ci bari dañuy xool xaalis bi xool lu ci bari ba da ngay ñëw way rek. ñu ne nañ ko waaw. nañ ah, ko kii rek génne ko bu ko defee xam nga day xaw a compliqué nga génn ba pare door a wax ni lii waroon na waat ah. musique bi ñu ngi dem jàngiwaat way des fois studio am ñu ñëw du ñu indi tem du ñu indi way ah. du ñu indi dara. mooy li ma wax benn moo la indi dañ naan la riiti. <laughs> de dee ko riiti léegi nag li jël til moom. dee ko riiti ji. fan lañ ko war a riitee. Mm-hmm. nga ne fa nag commencé créer ay couple ne ko mm-hmm. riiti ji teg ko fii. Mm-hmm. dolli ci li dolli ci lii di ko kole di ko collé. donc dafay compliqué. léegi loolu riiti bi génn rek. ekkale yàlla def ci sutura mu éclaté. toj àdduna bi nga ne lag léegi yow. li nga léegi nga def sa bopp léegi nga am problème nag léegi suñ ñëwee pour fekk fa dara léegi looy def. mais mais mooy li ngay wax loolu nag moo moo moo tasaare àdduna bi. Ah, loolu moo loolu moo tasaare àdduna bi ah, jommi na mais mais mais Père Amath Samb au temps de Lemzo Jamono. mais ku ne xam na ni. Lemzo Jamono lu ñu génnee tube la. lu mu génnee. mais parce que dafa dañ mais dañ ko doon hmm. ara mais ba juste ba léegi nii. mooy ba léegi nii ci musique.

ah dafa cër bu nga xam ne ki nga xam ne moo la doon moo la dalal baa maanaam ku mel ne Lemzo ñun dañ ko dañ ko sax ragaloon xam nga lu tax ndax daf ñoo daf ñoo daf ñoo daf ñoo jël gëm loolu ñu euh, wan ni lii moom liggéey la boo xam ne da ngeen ko war a teg ci téeméeri loxo. ñu ne loxo ñu respecté ko. Mhm. trois heures soo ñëwee sax trois heures su la fekkul fay euh, euh, mhm. soo ñëwee soirée si jotee doo doo way. doo way <laughs> gis nga. noonu ah, ay genre punition quoi. Ah, ah. waaw trois heures yooyu ok euh, Magaye Seck la ñuy libéré. da ñuy wax yow lan mooy maanaam kaddu gi la gën a ñor. jëm ci li nga yëngu mu di musique bi euh, tay ci bisu tay ji lan moy li nga xamantene mom nga ci bëgg a euh, wax à l'endroit euh, des musiciens moy ñu ñu gëna taxaw musiciens gëna taxaw artistes ñan ñoo leen taxaw. gën leen a couvrir sodaaf la xaw ah sodaaf yow yaa ngi sodaaf. sodaaf sodaaf hmm, yow ci ñi ñaxtu nga bokk. non non parce que ñoom yaakaar naa ñoo yore. dañ faa dem ñu la fay. non pa njëkk pa paasu aller ma ne merci de votre présentation merci <laughs> waaw euh, di ñaanal ñëpp jàmm. wax ne bi aussi. Euh, ñi ñi fa mu nekkoon ba tey. ma nga fa. Mm. ah di ñaan ñu gën ñoo taxaw rek. Mm-hmm. ministre de culture bi aussi xam nga. tey jii ku feebar war ngaa faju mm-hmm. ah ku bëgg a tukki léegi damaa seetlu na musique bi léegi pour nga génn réew mii léegi mm. non problème bu <laughs> dafa am yeneen yu dafa am yeneen stress stress des fois damay amee stress boo xam ne dafa am yeneen yu ciy laxasu yoo xamante ne xëj na du ñàkk euh, maanaam dafa am euh, maanaam le grand débat Euh, bu Exidex di def vendredi ci goudi dëgg la euh, gars yi dinañ ñëw ci thème bobu noonu parce que li laxasu ci eh, biir yëf yi. Mhm. dil li ñi wax ni mo ci nek mhm. ba tax ñu condamné ñepp légui mhm. pour nga doon musicien génnee ay musicien c'est tout un problème. ça à dire loolu itam gars war nañ ko waxtané non a na parce que un système Malik, y a système. Ah, a un lu ci xew a ko système. Il y a système de. y a un système. il y a système a na ku y ku un il paraît neuf musiciens système. ñu y a un ay ah instrumentistes. non musiciens un vraiment ils sont responsables. non a un système. Il y a un a non du musique rek xam nga lu y a bon. musique bon dire problème système. Il bañ ba lii fi nekk doo ko wax ñun en fait euh, gars yi ay kilifa lañ aussi ba léegi am na loo xamante ni duñ ko def man loolu bon am na ci ay njublang de ah bàyyi leen gars yi gars yi jàmm am nañu yóbbaale ay jaakatu màtt ah ay jaaykatu maat man mosuma woo gis nag. Malick xanaa commencé goo yóbbu. mosuma gis loolu xaw ma ñu koy defee mosuma koo gis. ayca ñu ngi gërëm Magaye Seck bu baax a baax Magaye dina joxaat rendez-vous incha allah rabbi euh, ci jamono yi di ñëw. di gërëm waa Tëngéej. Mm. Ah, di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ñun ñëpp. ah surtout Mamadou Sy nga xamante ne dafay sonn ci sumay affaire mm. ah Moussa Ndiaye Baye Fall bi. Mm. Mamadou Sy di suñu yaakaar ñun ñëpp Tëngéej lii may def album la mu taxaw ci di ma jàppale ah di nuyu LSD Lay Diagne Modou Ndiaye ah Mbacke di remercier Sénégal gi yëpp di leen wax ne nag nañu xaar album baa ngi ñëw. Mhm. lii dama ko dama ko dama ko dama par la force. on va nous accueillir. dama lay woowaat nga ñëw spécialement ñu waxtaane ko. lii fête de la musique la mais danañ def janoo incha allah. dëgg la jaajëf Maguette Seck kontaan naa kontaan naa ay jëf. yàqu ndax sunguf meen waaye ku dem ba biir daara jolof xam ne gay naa ko borom amin gay naa ko ari gay naa ko joodo euh, gay naa ko waxal gay naa ko mu joodo s'il vous plaît gay gay naa Malick takkul sa casque ndax nga dégg mu waa gay ko moomu ne ko mu joodo <laughs> jaajëf Malick yow euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom ma gay sekk borom euh, da nga may nopp ah tolloon na ay jamono nag loolu laa doon dund ak Lisa Georgia avant mu may nopp danga may nopp par force laa doon dund ak moom waaw ah, dund jot naa ko dund mooy nag dafa mel ni affaire bi di la ngi ci ah système système système naa ko ba mu nopp ma mais bi may ñëw maa ngi lay dégg naan Lisa xaw ma borom ñu laay kii bi ko mais bi ma ñëwee laa comprendre de mm-hmm. Mm-hmm. Lisa mi mm-hmm. Lisa am man man maay jëkkër man est-ce que du ma démissionné du si émission bi abandonné léegi ah, ah ah lu xew dafa am fu ma war a añi léegi quoi te <laughs> non Lisa moom dañ koy wax te dee moom kuul fu muy waxee sama kii daal bëgguma ko fekk ndax madame Ba <laughs> Lisa moom dañ koy wax te dee moom xale bi moom vraiment macha allah

salaamaaleykum baal leen ma de. waaw <laughs> madame ba perte nga. <laughs> illallah la ma def ci café gi. perte na Lisa kenn du tooñ tooñ baaxul. fekkew ma ko dafa saturé. papa laa ah, ah, fi nekk nii. fekkew ma eh, eh, eh, bi nga dugal ko léegi ci fii fii. foofu amul dara. man min ko mi Haalpulaar. ah, ah ka sama xarit léegi xaaral ba ma pare ci émission bi ñu waxtaan. madame tamit pulaar la de yow yaa ngi négocier. madame nga lay madame nga lay déglu de nga commencé négocier te dama ko fen. man man daal fekkew ma. may naa leen gay naa way way bi ma ko wayoon après nga teg ko waay. Lisa Lisa da leen di dugal rek. <laughs> waaw cool. Abdoulaye <laughs> waaw. waaw maa ngi leen nuyu bu baax a baax. sama waa ji ñu ngi lay fay. di kontaan di nuyu tey ñi nga xam ne ni ay ndaanaan yu mag la ñu ma fekk tey. Mhm. muy wëz. Mhm. ah suñu tonton Amath. ak Malick. vraiment nekk nit ñoo xam ne nit ñu baax lan parce que ñoom seen bopp man dañ may bëggee. Mm. te loolu ñoom waxuñ ma ko mais fan kay waxee loola mooy egsi ci man. kon donc loolu tey maa leen ci sant di leen gërëm. Mm. di leen ñaanal li ngeen dëggal seen kanam yàlla leen ci yàlla may dal. ci barke Seydina Mohamed. kuul yow tamit di nuyu nuyu boo xam ne nii am na commencement mais amul fu mu yem. ñu ngi lay fay papalaay. parce li fi génn bëri na ci at mi. Mhm. nga ñëw jël gay naa ko. Mhm. def ko générique. Mhm. loolu kuul mënu ma gay ko dafa garaaw. mais loolu mënu ma la koo fay. <laughs> parce que fii ñëppay way. gars ay it rek dañuy génne. yow générique jàmbur la. mais ko tey soo ñëwee jël son bi def ko générique. loolu wax dëgg yàlla dinaa la sant la tournel sa micro euh, ñu gën la dégg très bien. parce que da ngaa nekk nitu ñëpp. nekk waaye ñëpp. man bi ma toogee dama foog ne da teg nii di def comme. li la ci war ci son bi mhm. mais en fait da nga ko continuer di ko continuer ba man mbir mi jaaxal ma dëgg la ma war ne la sa man tey jaaxle naa nga ne ma bu mu la jaaxal ndax ñii animateur ñii nekk ci ci rajo bi di animé tey ñoom ñëpp dañoo apprécier morceau bi ay woykat dañ may woo ne ma kan moo woy lii sax xamul na yow la parce que ngir ngir beneen liggéey façon liggéey bi nga def donc kon man ma koy sante tey di sant ñi nga xam ne ay melomaan lépp ci réew mi vraiment di aussi di ci ñi nga xam ne tey ñoo liggéey morceau bi tamit mhm. parce que du waxi kese. kii bu baax la àndal. waaw maa ngi ciy remercier ñi nga xam ne tey ñoom laa ci ànd ak musiciens yi ma accompagné ban def ko ba ci studio bi ñu ko enregistré.

maa ngi koy wax maa lay félicité ci morceau bi. Mhm. parce que xam nga lu tax koor gi de lëmb na télé yëpp la lëmb xam nga musique bi. jàpp xam ne dañ ciy sonn. yóbbu ñu Arabie Saoudite di ci gis seen bopp. Mhm. te donc tey musique AZT bi léegi dafa dominé. musique bu bu baax. <laughs> non fu mu nekkoon. non musique AZT dafa am. Mhm. bi nga xam ne dañ koy génn rek pour am buzz. loolu ñun ñëpp mën nañ ko Weuss su ko neexee Weuss mi su ko neexee so wax benn woy boo xam ne day vulgaire ñëpp di wax naan Weuss nga mm-hmm. am na loo mm-hmm. xam ne war nga mm-hmm. am na ñoo xam ne am ngay waajur ak i mag ñoo xam ne dañoo am ci benn benn cër. kon musique bi nañ ko encadré surtout ci bésu fête la musique bi. la mais mais attention nag temps yi euh, na bagage yi dugg xew na de. xam eh, nga dafa neex de ah xew na de. waaw xaw ma. ak mhm. <laughs> bi ma noppal la force li mooy. li bi. dañu fekk suñu papa yi ñoom Youssou Ndour ak ñoom papa Thione fii. Mhm. ñu ñëw di roy ci ñoom. nan leen roy ci ñooñu li ñu doon def. Mhm. ñu liggéey musique bu baax. parce que nit ñi ngi naan toujours ci télé yi da ngay émission yi ñu naan valeur yi dafa yàq valeur yi du lenn. mooy yenn woy yi génn yoo xam ne nii xale su koy foyee su màggee lu ko nar a génne ci boppam day métti xam nga dëgg dañ koy war di wax bu di toog ci télé bi di bañ li naqari nit lu ci yoon dañ laa teg ci yoon

yaa ngi dégg de xale yi daan ci am éducation bu baax mhm. mais xale lu mu dégg rek moom mu lay fooy ci kanam yaayam ak papaam mhm. te loolu war nañ koy calculer bu baax a baax a baax <laughs> mhm. xale xale xale bu jàkkaarloo ak papaam naan ko papa na bagage yi dugg ma xam lu ma jaaxal cool ah cool dafa am nu ñu toppante waaw les générations diffèrent te tey euh, lay mi ay wërs ay man mii ñun booy xool ñoo maase jamono te ñun dañu dégg doon déglu ñoom ñom père Amath yenn moy ñom sen génération te ñoom fooye wuñu won musique mais nak motax ñun amna lo loo ñëmé ne ñemewuñu ko def mhm. je comprends aussi la toute nouvelle génération bi soog a ñëw mhm. dañoo ñëw fekk jamono yaq ñu and ak technologie mhm. wax ju reuy ngay wax sax pour ñu déglu la té gaay yi dañ daan liggéey lu reuy pour ñu déglu il faut nga saga gaay déglu déglu da nga daan gis orchestre am ben <laughs> ben tëggkat sabar dañu privilégié won la musique <laughs> mais les orchestres 4 5 ce sëkkat savoir la ñuy rangale dañuy privilégier le rythme le mal est trop profond mais nak parfois on est dans ñu ngi ci radio xaw ban atmosphère lañ mën tok ba suñu mbirum bir ah ñu tënk suñu problème euh, mais ci radio lañ ko mën régler hein ah. Koul ah, xaw ah, actuellement tout le monde nous écoute. Euh, ma expliqué la benn affaire Koul. waaw. Euh, benn affaire dafa am euh ci musique bi légui ñun bu njëkk boo xale yi bu njëkk pour nga pour ñu gis orchestre bu joué hmm. ah sax problème la woon dégg nga xamoo fu may waxee dëgg la mais suñ demee ba jëmmi jamono man Père Amath maa wax maa la wax lii tey hmm. suñ demee ba jamono léegi musique bu ñu koy teg si mbedd mi hmm. instrument yi si mbedd mi ah guitare yi si mbedd mi jàkkaarloo yi jàkkaarloo si mbedd mi batterie yi si mbedd mi xale yoo xamul loolu sax musique léegi xam ne lii orchestre man am na xale yoo xam ne ñun de suñu temps am nañu moment yoo xam ne orchestre koy gis da ngay dem ci danse bu mag pour mën ko découvrir mais xale bu am six ans léegi xam na luy batterie xam na luy basse bu ñu ko doo ko gis ci mbedd maanaam hmm. musique dëgg rek. Hmm. nañu waxante dëgg rek te loolu yëpp bu dee ko mën a nga ne lii la ñu ne orchestre tëgg ci mbedd. kon toll nii doy na war. man rond-point ah, Liberté 6. li mu wax nii. waaw ci jamono bi ndongoloo. ndongoloo di door a gaañu. billaay dafa doy waar. gis naa gis naa rond-point Liberté 6. ñu tegoon fa orchestre. Mhm. groupe jàmm bu ndongoloo. ma dox ba Cambérène. Hmm. mais batterie bi rek gis nga cadre orchestre bi dama seen ñu teg batterie bi décorer ko rek ma dem ñibbi. ngoon gi dama déplacé waat ñëwaat. da lay jaral sax nga que foofu laa ko gisee boo gisee décoru batterie rek. Mm. da ngay doxaat. ànd ak seen gaa naan leen booy fële am na ko dox lu tolloog liberté. li tonton Amath di wax léegi c'est très important xam nga ñun dañoo am mm. fit rek. Mm-hmm. plateau bi moom tonton Amath bu fi toogee ñun sax waratuñu wax. wallaay wax dëgg yàlla man dama yem sax jeune di wax. devant lui mm-hmm. parce que mm-hmm. respect dafa amoon ci musique te loolu yëpp daf ko tënk. mooy li muy wax léegi ne dañu dévaloriser musique xam nga tey am na sentir que ni da leen vexé. mais la c'est-à-dire am cool. Ah cool non non lay wax. <laughs> constance bi ñu doon wax sànq. Mm. xam nga il faut être constant. Malick Diabou fii laa koy mm. ma yey caaf sama kër moo ma gënal ma dem ji tëgg jàkkaarloo. ma jàkkaarloo bu kenn xeeb sa noos ki am bésu mariage am. Mm. loolu la bëgg mais c'est-à-dire man musique respect musique la gën que xaw ma bégal benn jomèram wax na dëgg parce que dafa am dafa am dafa am dafa am mythe dafa am mythe bu ci ne mm, mm. dafa am respect bu ci ne dafa am lu ñu ko muuree très bien loolu kenn waru ko wulli wulli très bien kenn waru ko wulli looloo ëpp doole loo gis tu vois mooy li tonton di wax rek xam nga mm. dama dem benn soirée papa Pape Diouf diaspora mm-hmm. yàgg na mm-hmm. di waaye Pape Diouf ba ci yàgg sama mm-hmm. xel dem ci ma ni gees rek seen tonton Amath sama xel dem ci benn way rek ma boole ko ci la may bëf parce que loolu daf ñu berse waaju dama ni ki dama ni wàcc nga alaaji daraga waajur waajur waajur waajur wi daara lamin daara daara lem daraja ay daara fu nu mës a woyee rek say fibre yëngatu laaj ndeysaan def nag mu ñel ma mu ñel ma waaw waaw ba feral dal, daal dañ koy dégg yow ma bëggaat nga muñal ma muñal ma waaw waaw ba feral dal xam nga loolu lu tax tay. yow fi nga gisee mooy wëz mooy tey xam nga ne tey yaa wara wara wara a war a war a rey li ngay rëbb mais kooku tey gis na ne moom mm, mm, mm. li muy nokk tokk ma mm-hmm. ak rabu mm-hmm. am nang jabot, mu ngi xalaat njaboot gi euh, ñu nar ko jam mu naan ko tey maa ñu sama doom te ku te ku xaar jamono mm-hmm. Euh, ma wax occasion. Mm. nekkuma ci xelam. Mm. nekkuma ci xelu tontu amat. kuy xaar jamono jii. Mm. ñoom ñu tourné boo leen dénkul sa bopp dëggantaan di sukk seen tànk di leen laaj. ah tonton lii laa bëgg def nangam kuy xaar ñu fekk la fa nga ne. ni la bul def lii force wala defeel nii doo ko dégg. parce que ñàkk teggin gi ci réew mi. koo wax mu ne ah ñoom daal lii leen bëgg a def. bëgg nu nangam. moo tax ñoom ñëpp. dama xool ci grand musicien yi lépp. boo leen doo defee mos waaye gannaaw toj naa fi ñu la toj nga fi kay. mais mais Ousseynou Ousseynou ñàkk teggin boobu la moo ko indi pour yow. Euh, parce que parce que hmm. boo gis nga euh, loolu day déparé si yar gi ci kër. dafa am hmm. ñoo xam ne naturellement. Hmm. dañ leen yar ku mat waajur waajur la ku mat nangam nangam la mais exemplaire ci musique yow fa nga ci bëgg a toll bu fekkee dama ci bëgg avancé di def benn affaire. xool tonton Amath Samba la mu fekkee lépp conséquences yi nekk ci musique euh, showbiz yëpp. su ma bëggee def dara naa ñëw loolu sama yar moo ma ko may pour ma jël ci li mu yor mhm. dolli ko man ci li ma yàlla baaxee mhm. boo demul jël ci li ñoom li ñu yor ñoom yow la nga yor boo ko doylooyee peut-être mu doy la yàlla mën na la ci fekk si mais tamit jël ci li mu yor dolli ci li nga yor dalay yokk donc mais ñoom fekkatulu kenn di la naa laan doo def ak di def mais eh, ñëpp laa biiru ñu laa biiru nga maanaam mën a jàngale ah. am na ñoo xamante ne boo demee pour ñu jàngal leen dañ lay convaincre ah dañuy dañ lay wan lu yombali rek di ci des ñu téye mais jàng mais jàng ajootul dem tuux dem di uubu ci gannaaw nit tey mi ngi woy woyu Amath Samb léegi-léegi amaana fan la ko gisee mu mm. ngi soog a toog ak moom su ma jumlee man maa ngi soog a toog ak moom te way naa wayam léegi-léegi mais dama euh, seulement il faut euh, vas Samb lu mu doon euh, bëgg a dama am mbégte mu am mm-hmm. sama doom yi fii si man la ci plateau mm-hmm. bi mm-hmm. te ma leen di suivre kii Malick maa ngi koy suivre waaw Ousseynou Laye maa ngi suivre baax di leen déglu Pape Laye dama leen di suivre ñu nekk xale yoo xam ni ah, ñu bar ñu dañ leen war a bàyyi xel parce que damay mortu boobu ngay yéen taala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu waay mën a woy woy woy woy mënoo woy ñun ku yàlla bind yéen taala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la gën mënoo woy lu sut yonent bi kon da ngaa def loo xam ne woy loo xam ne loolu vraiment da yëkkul dama la si félicité kontaan loolu te laa ma dégg lu mooy lu am solo ma dégg kii Ousseynou Laye moom it di woy loo xam ni dama damaa leen di dégg nekkul woy yoo xam ne woy kasa-kasaw la vraiment kontaan naa vraiment bokk ak yéen plateau bi di leen digal alhamdulilah yàlla na leen yàlla gën a jàpp ñu tamit te fi ngeen teg teg seen tànk nii ma dégg li ngeen di woy nii su ngeen continuer si lancé bi góorgóorlu di gëstu bak Sëñ Saaliw ñëpp dañ leen dégg euh, ni mu toll ci musique euh, aduna bi yëpp xam ko euh, mom motax sax tay mom mom moy tay tey invité d'honneur motax bi mu toogee ci plateau bi ba légui ku nekk ñëw nga dem ñu ba ko fi mu tok parce que lu waay wax itam maanaam moom bu nu ko laajee da fay mëna joxé exemple parce que Lemzo jamono laataa lolu mi ngi fi won donc li ñu cëraloon ci waxtu lek na 18 minutes ci ci Lisa Georgia Papa lay lan moy cadeau gi nga bëgg dëgg la euh, donc euh, euh, mhm. xam naa ne kontaan naa parce que. yow da ngaa tardé ma am waaw lu ma fi war a mën a wax parce que <laughs> daanaa ni wax nañ lépp. Mhm. Mhm. mais li may waxaat ci jour occasion fête de la musique mooy kër bu amul bunt kër rek dañ koy bëtt kër day am bunt ni ñu jaar ci bunt bi dafa dugg. musique bi soo xoolee làmb ji dafa am ngay bëre ci arène bi da ngay am licence kon même boo koy def di woy war nga dem bees daa sa carte. sooy guitare moo xam ne ngay clavier war nga am carte artiste. nga tego ci yoon ñu encadré la su ko defee tey booy génn tamit album wala single su paree nan jël single yooyu yóbbu ko BSDA ñoom suñu auditeurs dañoo balaa dem rajo ñoom ñoo ko war a indi fii sax déglu ko suñ ko la pare nag ñoom ñoo ko war a andi. su ko defee loolu su ñëwee mhm. dana jàll su war amee lu ñu ci war a dindi ñu woola yow musicien la ñëwaat fi nga changé ci lii ak lii ak lii mhm. parce que lii du génn mhm. loolu lañ bëgg su ko defee même doontoon da lay laaj yow artiste bi ne la donc da ngay soo génnee single da nga jox benn trente mille boo xam ne transport bi bu ñu ko yóbbu ci rajo yi la xam ne semaine boobu single yi génne oto bi moo koy yóbbandoo ci rajo bi nga xam ne amut ay def sa benn affaire fii rek ci mbedd mi ñëw joxe il faut loolu ñu ko pour affaire yi yoon ci dëkk bi parce que léeg-léeg maanaam tey am na wax yoo xam am ñu muy gaañ loolu lépp nag defar lañ ci jublu mais xasuñ kenn. Hmm. teebun kenn. parce que réew mi ay ndaana na fi ne pour musique bi rek développer la. am na solo Père Amath Samb lu mu bëgg wax. Euh, euh, bon dañu ko hmm. balaa ñuy dem nak dañ am lu tout loo xam dañ ko def maag sama sama sama kii ndax ñoom dañ ko. waaw lolu bëgg na ko bëgg mom la bëgg ñu tëjee ko. dama bëgg manam ngeen def ben genre. waaw ben benn genre euh, mbeeraay rek. danaa leen si oo oh, <laughs> damay remercier vraiment à ñi nga xam ne. Mhm. ñoo ma tëggal sama singal bi. ku mel ni Papis Konaté. waaw mu xam ne ak ñoom Dembel nga xam ne si participé mhm ak ñu Moussa Traoré mhm. ak ñom euh, euh, Yadma mhm. vraiment maa ngi maa maa ngi leen di féliciter mhm. encore di gërëm bu baax euh, ñi nga xam ne ñoom ma jàppale pour moo mën a génne lii ku mel ni vraiment ku mel ni ci États-Unis la nekk New York ku mel ni Aminata Amina Wade ku mel ni kan soxna maam Fatou Samb di leen félicité ci vraiment ci nuñ ma di leen gërëm ci nuñ ma jàppale. Mhm. di gërëm sama ménager bu ñaawul bi nag muy Laay mhm. Diouf. ku mel ne Laay Diouf ku mel ne Ama Xari ku mel ne Abbas vraiment dañoo jàpp ci liggéey bi kon ñoo mënu maa dem te delloo ma leen dugal ku mel ni kan Ousmane Wade di bàyyi yéeme tamit dama koy ñaan yàlla gudd fanam. Mhm. lii lii nag laa bëggoon ngeen ah, ma diwoo ko ñoom. waaw loo xam ne dañ lañ koy wéy sax loolu lañ koy wéy sax. ku ku ne trente secondes rek léelé mm. waaw waaw waaw waaw DJ Cooloo loola kenn du ko mi mooy lu wóor mm. xoolal ku mel Amina Wadoy mooy yaay Xadija ku mel ni Ousmane mooy bàyyi njéeme mi ne leen ma laay laam dëjëkul jël nga jël nga ndam li wallaay ne laay ne la la jël nga ndam li wallaay lay la la dëjëkul ne laay oh. nga ndam li wallaay lay la wallaay nga bëgg ma tudd ko wallaay nga bëgg ma tudd ko wallaay bar gi nga ma di jékul daan nga leen wallaay King FM jël nga ndam li yu ma mujj baaba mujj bi ba na taamaay ndeysaan oh, waaw waaw hmm. dafa yàqu ndax sunguf meew waaye ku dem ba biir daara jolof xam ne gay naa ko boroom dafay ami nag hmm. sama njóobee eh. leen ka. yaa ngi laal sama xarit ba. gay naa ko gay naa ko. ndeysaan gay naa ko. Samba Ari gay naa ko Amath. gay naa ko Wës gay mi. kile dëkk ci réew mi Thiam dogoo ngi noonu Cheikh Abdoulaye Thiam. ndeysaan ni ñu sagal. ndeysaan kile bind 633 poème jëmali ci Seydina mohamed président fondation Kër Rasoul bi lay woo. xayrul alamiina oo ki moo ne moo dem bind 633 bind ko ci nasaraan xam na ni duñu réewu arab mu ne ndaw mi kenn waratul umpuli kan mooy jojuwaay rasulillah lépp lu mu am moom di mu am muy góor mbaa muy jigéen dippi na ko Seydina Muhammad Ousseynou mm-hmm. mbaa xam nga ni ñi seen soxna wan noon lor ñu naan bu dee góor ñu tuddee Muhammad bu dee jigéen tamit mbaa xam nañu Muhammad am nay turu jigéen sëriñ saali waay ndeysaan ah. jama jamono loolu kenn du ko mi moo loor mooy waram jaafanal sëriñ Saalu waaye borom yërmande waaye loolu kenn du ko mim mooy lu waaye di jëkkuloo ñu ngi jaajëfal waa King FM waay sëriñ Saalu yaay Xadija bilaay sëriñ Saalu waa bu leen di dingaat waa Mina waay waay dëgg dëgg yaay Xadija sëriñ Saaliw woo loolu kenn du ko mi ma. Ah. Ah. Ah. ne ne neex na ba àgg ci lool wax dëgg neex yàlla euh, neex na ba àgg ci lool euh, ñu jaajëfal leen bu baax a baax euh, lu neex du doy 18h incha allah rabbi aba Non Stress sera là moom itam dafay ñëw pour wëyal li nga xamante ne moom mooy fête de la musique bi ci façon am Exidex itam dina fi jaar donc fii ba guddi les png ñoom ñëpp dinañu teew.